qaryaatihin ilmaana fihim wa siblata ijtimaai sartin wa qasam jawaaba ma axarta fahuwa multasam wa id tawalaya wa qablu su xabar فصار ترجيه مطلقا بلا هدر وربما رجح بعد قسمه شرط بلا سبب tey ci jawaabi soxla mm. jasam ñaari fenn mm. mu ne jawaabi sarta buñ ko mm. dagan ne xasa bàyyi fa sarta sa moom kenn rek sarta buñ ko dagan ne xasa bàyyi fa jawaab ji moom kenn rek sarta yoo ni danay doy an jawaabin walir jawaab xanuma li ma jut xamees na hmm. jawaab gannaaw xam nañ ko hmm. su la neexee boo indee sarta hmm. rek mën nga jaayal fa in istata'ta an tabtaxiya nafaqan fi law aw sullaman fi sama borom mi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko fi la ñee jaar su fekkee mën ngaa def pax ci suuf si ne fa ba doo déggati li ñoo def li li ñuy wax. Hmm. wala nga mën a buur seel buur xiir ca kaw. soo mënee loolu. Hmm. ko waaw ba yéen it daal daan daan tax yéen a nafaqan hmm. aw sulaman fi sama. sama. sarta bi dañ ko war a toog jawaab bi dañ ko war a toog. mooy ki duma rek nga ne ko boo ko mënee. mais boo ko mënee def ko. wala rek. te mooy doyloo jawaab wali sarta inil maana ndegam déggeef na maanama nga biri alifu hima tudd jawaab moom kenn xasab sarta ci barab boo xam ne xam nañ li war a do sarta loolu it dee fay am mata tuuxasoo bi dinnati haamirin walam yanju illa fi safaati yasiru matatu kaso hmm. waxtu wuñ leen fekkee dañ leen jàpp matatul foo tuux kaso hmm. matatul kaso waxtu wuñ leen gisee dañ leen jàpp hmm. matatul foo tuux kaso tul foo mi sarta bi dañ ko waasal ndax xam buñ ko xamee ci tuux kaso ndax jàpp ki nga gis nga koy xasran ci tuux xasran dégg nga xasran ci haamirin ci tuumay haamir tuuma ji leen xaamit tuumaal wala mu yan ji muccul yasiidu illa fi safarin dara ci jéem bi kay taw xabilin damay def naa ko xabilin jéem waaye loolu maanaam firim way ay mata tulfo wa yakkusuru ba'da in maqronatin bila ñaata sarta bàyyi fa jawaab bu ngee gën am ci su fekkee adaatu sarti daf di in mais li sart bu war a ànd ak laa ñaan hmm. wa illa hmm. ak wajatul loolu wa hmm. falasta laa bi kuhin wa illa yaadu mafraka kalbu saabu wa talliqaa fase ko falasta déet yow bi kuhin nga ne nawle lahaa ñaal fase ndax yemoo la ak moom wa illa boo ko fasewut hmm. wa illa tutalliqa hmm. wa illa boo ko fasewut wa illa tutalliqa hmm. tutalliq mi sarta bi dañ ko asal muy feeli sarta bi ndax daf sarta bi in la bu ànd ak la yaa lu gën a kowe ak bu jaadi moom rafa dana dox wa sartu sarta yuxni danay doy xan jawaabin walis jawaab xan olima jot xamee na ko walxasu sabaan biir xariyaati danay dikk inil maanaa ndegam di génn na maanaam dégg nga loolu ak jawaab su fekkee dañoo dajee ci sarta ak ngiñ laa de wax suñ dajee ci benn jumla ñii xëccoo jawaab ji mu ne ki jiitu ngay jox jawaab ji ki mujj ñàkk waasib na nga xasab hmm. la day timaaye sartin fa dajeeg sarta hmm. waqasamin ak ngiñ hmm. jawaabu ma jawaab bi di nga xam ne axaas ta yéexee foofu moom loolu multasamum lu ñu waxal sarta ak ngiñ buñ dajee ci benn jumla benn jawaab moo fay nekk jawaab bi nag su boobaa ki mujj ñëw moom lañ koo jox mu mu mu de ki njëkk a ñëw. Hmm. moom lañ jox bu sarta jiitoo. Hmm. mooy moom jawaab bi. Hmm. bu ngiñ jiitoo. mooy moom jawaab bi. ku la dinaa nag mu jiitu. waaye ku mën a jiitu mooy moom jawaab bi. fa jawaabul bi soo ko moomalee sarta. da jasam buy jasam mën a fay. wala nga ko faa bu jasam mën a fay. wa jawaabu saani. fii laamun mm. aw man fii boo ko moomalee ngi mm. da nga defal la laamun ngi mm. wala nga defal ko jumtukaay yu dàq doo ko ci defal baax fa tuqaddimu sarta man ngaa jiita sarta de ngeen inta kum boo jógee muy sarta wallahi gis na ci yàlla muy ngi ukrimka sarta bi mooy jiitu jawaab bi jawaabu sarta la moo tax ñu ko wala inta xum boo jógee mm. wallahi mm. falan a xoomu du ma jóg de a xoom mm. mooy jawaab bi lan koog lan sarta jiitu war koo moom moo tax dafa dalay bi faa wa tuqaddimul xasama bu la neexoon nga jiital ngi wallahi inta xum wallahi ni inta xum doog a ñëw a xoom mii jawaab bi da nga laa nga la a xuman na kiloon eh, sarta ak ngin buñ dajee ci benn jumla amul tartiib seen ku la ci neex nga jiital waaye nag gannaaw ñoo war a soxla benn jawaab suñ njëkkee tudd moom la ñuy a jawaab bi day suñuñu jàpp ñàpp wasim na nga asab la daj ci maaye sarteen ba dajeeg sarta waxasa min ak ngin jawaab ma jawaab bi li nga xam ne axasa yéexee nga ko ci ñoom ñaar loolu mubtada moom lu ñu waral la su fekkee mubtada dafa jumla topp ci jumla bi xabaru mubtada war jumla bi sax tan gis na ci mubtada mi day tax lu mën a xew sarta bi dañu jox jawaab ndax sarta jumla bu doon xabaru mubtada moo hmm. tax ne wayen tawaala yaa buñ tawlantoo ñoom ñaar hmm. muy sax ak ngiñ hmm. wa qablu te nekk na ca seen njëkk ñoom ñaar soo xabarin mubtada may borom xabar te jumla mubtada war am xabar jiitu mubtada ma war am xabar jiitu leen fara ji na nga lëngal asfarta farta ngay lëngal mutlaqan de duñu boyal xamul moo jiitu xamul moo mujji bila hadari jilwa jilul bentere niki zaydun mm-hmm. mooy mubtadaa bi mm-hmm. mm-hmm. in yaqum wallahi in yaqum rasala wallahi ngiñ la ukrimuka ngay jumla in yaqum ukrimuka moo mën a doon xabari zaydun mooy mubtadaa bi wallahi da jiitu intaqu hmm. yukrim ka ngay wax hmm. sarta bi eh, jawab bi sarta nga koy jox hmm. na sarta bi jawab bi moo mën a doon xabari bu tada waaye bi ne jawab ba mënu ko li am na xasbal jawab bi ndax xasbal jawab bi sarta bi mu xillun aji yàqala bi jumla si ci jumla allati jumla bi naan foofu sarta bi mi naa lu tukkee waaw waaw kon doo mën a am loo xabarale bu tada su waa jumla bi du mën a soo andee mubtada jumla topp ja war a doon xabaram jumla ba sarta na ja ngiñ na ja ñoom ñaar ak ku jaay mën a jiitu mubtada mi jiitu mooy tax dañuy lëngal sarta mooy moom jawaab ndax sarta jawaab moo mën a doon xabari mubtada waaye ngiñee jawaab moom xabari mubtada wayin tawala yaa buñ tablantooyee ñoom ñaar mm. te mooy sartag ngin mm. nekk na ca seen njëkk ñoom ñaar mm. soo xabarin mubtada may borom xabar fara ji na nga lëngal ak sarta mu ngay ñoo jawaab mu la xande lu ñu ba mu njëkk mu mujj yëpp a jeex bila xabarin si ban watan rek léeg-léeg nga fekk ñu indi ngiñ indi sarta hmm. xam ne ngiñ jiitu hmm. jawaab ñu jox ko sarta hmm. te mu tal du ne du ne maanaam waru gomaaru jaa léeg-léeg lënga leer doonte bëriwul ba da xasa min ci gannaaw ngiñ sartu sarta ñu lëngal sarta jox ko jawaab te ngiñam ko jiitu loolu dina am bila fi xabarin kurul mu ta damay borom xabaar muqaddami ma la muy jiital te dul ne mu ta dafa jiitu loolu dina am ifaaqan lil farra wa minhu qawluhu la in munita bina an ribbi marasatin la tulfina an dima'il qawmi nantafiru la in munita wallahi muna tawfela lam bi lamul qasami la in bi ini sarti yàlla ñoom ñaar ñu ànd mubtada jiitu de tengi ne jiitu illa na too bi naa ci ñun xan xit bi maarakatin ci jamonoy xare ndaa tul fi naa dooñu fekk nan tëbilu ñii dañ tëlu de xandimayil xam wal deret nit ñi tul fi mooy jawaabi in bi ñu ko jasame asal ya dégg bu baax a baax àlla gis nga ko la in kaana maa haddastahu al yawma sadiqan asum fi naharil qaydi li samsi badiya layin kaana bu nekkee maa li nga xam ne waxtaan nga ko al yow ma tey sadiqan daa ji sa waxi tey ji dëgg la kon sa waxi tey ji buy dëgg asum danaa xoor fi naharil ci bëccëgam tàngoor badiyan daa ji génn daa ji feeñ li samsi jëm ci naaju ñaar laamul qasami la mm. ak in asartiya mm. kon ñoom ñaar ñoo ànd te ngi jiitu mm. jawaab bi jawaab bi sart la asum te mu dal ne wuti loolu mooy saahib a baax ana lu ci teg in mu ne way sa tawala sartaani li mooy sartaan ji ñaari sarta nag buñ dañuy seet fa in hatifa bil waawi su fekkee dañ leen hatifa te waaw kon fal jawaabu lahu maama ñoo bokk ñaar jawab ñoo ñaar nga ne in jiite boo dikkee wa in jaa seen ak bu seen dikkee ukrim ka wala wa in jaa amrun ukrim ka ñaari sarta la mm. waaye dañu xalifante waaw mm. ñoo bokk jawaab bi mm. lañ cee déggee mooy fa ngay di kan mu dikk garab dafa naa ñoo bokk jawaab bi wala in jiita boo dikkee wayn jaa xamrun ukrimu aw bil faa buñ leen xalifante faa nag fa lisaani jawaab ji sartal ñaareel benn fu moom wa huwa wa jawaabu wa jawaabul awwal su fekkee ñaari sarta dañoo tegaloo te ñoo difante leen faa kon jawaab jege kanam sartal ñaareel bee ko jumla sartal ñaareel bi mooy nekkee bara bu njëkkam te jawaab bi sarta soo njëkk nigi in nigi yow mu in kumta boo jógee di fa in qaama seydun bu seet jóge hmm. ak qum ma jóg in qumta in qaama seydun ñaari sarta yu tegaloo la hmm. te li nga tifante faa hmm. kon ak qum jawaabi in qaama seydun la jumla bi in qaama seydun mooy nekk borom jësam te jawaab in qumta wa bilaa hatfin su fekkee ci lu dul tifante la nag ñaari sarta ñoo tegaloo te tifante amu ci kon fa lil awali mm. jawaab bi sarta bu njëkk bee ko moom mm. bu ñaar bi ñaar sa jawaabam mm. mooy fay naa sot ko baadaha in wa ala nasiya minata faqul ala wala la wana faqul jawaab in wa atina sartula mooy in tastaxiisu bina in tudaaru tajidu inna maa xilaai sin sana karam in tastaxiisoo bu ngeen xettale ko bi naa ci in tusaaroo bu tiitalee ji tajidoo da ngeen fekk min naa ci ñun maa xila ay sin làkkuwaay tedd nga mooy làkkuwaay yu am karaga yoo xam ne sax na rafetal na leen karamu tap hmm. in tastaxiisoo in tusaaroo ñaari hmm. sarta yu tegaloo ci lu dul atif la hmm.